24 Info, l'information sur mesure. Bon, tout a commencé à 15h, quoi, vers 15h. Parce que son code, c'est Julie John, Juma, léegi bi mu ñibbisee ñëw ba këram gis fa ay renseignements généraux ñoo xam ay RG peut-être des gendarmes de des policiers taxaw yor ay téléphones di ko filmer quoi léegi moom comprendre léegi mu dem ba ci ñoom di doon wax pour ñu supprimer liñ filmé léegi nag waa bañ léegi nag ci la def de force mu nangu téléphone bi ci waa ji dugoo moom ci biir kër gi léegi ñooñ biñ demee trente minutes après léegi nag ci la gendarmerie la GIGN ak BIP ci lañ ñëwee ci kër gi nag dajji bunnu kër gi dugg ci bi jël ko embarqué ko léegi ñëpp ñi nga doon wax naan euh, nañ ko yóbbu fële section de recherche bu gendarmerie mais finalement mi ngi tribunal ci cave bi xaw ma nag lan lañ koy lan lañ koy def fofu mais d'après ñu bëri li ñu wax nekkul ne ci dossier Ali Sar bi wala bok ci dossier Mamay Mbaye motax ñu japp ko non non mais ci agression bi mu def à l'encontre d'une force de défense et de sécurité lolu tax ñu japp ko donc ci information yooyu dal lañ jotagum pour le moment que ni dossier bi ni li tax ñu japp ko moy agression bi mu def à l'encontre d'un force de défense et de sécurité ba nangu téléphone lolu tax ñu ñew japp ko yóbbu ko Dakar 24 Info, l'information sur mesure.